jëf la boo xam sax jëf bu nu miin la ndax jógunu si benn yoon rey nañu ay xar rey nu ay nag misuy ko yi moo nekk nii soos bee nekk nii salaat bi moo nekk nii purée bi moo nekk nii crudité yi moo nekk nii mayonnaise bi moo nekk nii pomme de terre bi moo ngi nee tamit këccëb bi moo ngi nii dara manqué dara jeexu fi di ñaanal Cheikh Serif Assane Kane yàlla na fi yàgg te wér ndax lu mu fi yàgg rek doyul lu mu fi yàgg lu mu gudd fan rek tamit doyul ndax dundam gi kat lépp njariñ la ak bëgg jaamu yàlla yi nangoo jaamu yàlla bëgg ku ku fi jógee dem aajana yàlla na yeex loolu rek la bëggal jaam yi lii nekk liggéey boo xam ne nu miin la ndax nii la ko nii la ko defee si màggal gi nu ko raw defee ko noonu weeru koor di ko defee noonu fu mu toll nii eh, leet xarit du ko defee fu mu toon noonu mbaaleen mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu nu miin la ndax nag kan mënu laa fay dañu feccum liir bu neexee ndey jaa jàpp si mbagg ya te nag yaay sunu lépp jooyu nu ndey jooyu nu baay jaaxlewunu tumurankewunu amul dara lu ñuy xalaat ñu ku ñu xool njaboot suñu Assane Ka nga xam ne ñëpp belli kenn amul la naqari barki sëñ Bàmba li may wax nii nag sama xol tibbee mu nekk sëriñ boo xamante ni li ma waxoon keroog laay waxaat mooy vert jaune rouge drapeau senegal xam moo bëgg ñëpp ñëpp a ko bëgg ndax fu mu toll vert bi du la weer jaune bi du la sonn loo te la rouge bi mooy du la ruus loo kooku mooy Cheikh Sirif Assane Kane borom Nasru yàlla na fi yàgg lool te université la université la day jàngale sëñ Assane Kane du anda ak kenn fu mu toll nii way nakari di ko di am lu koy naqari sëñ asan kan du ànd ak kenn fu mu toll nii way juróom di koy jéppi ndax kon yenn saa yi nga gis nit koo xam day ànd ak way ko jéppi sëriñ ba ndax na muy mel a tax ku gi fu mu toll wax rek la day defar di defare di jagle barke sëriñ Touba ku ñëw fii ku ne sa wayju bu la xoolee dina bëgg bëgg goo xam day xam ne ànd gaa kilifa gu mat kilifa ñu dañ koy ñu dañuy sunu sering ndax sans faute ndax med bu nu neex jaar di titolo sun serigne muy serigne bo xamante fum ton dine rek koko ñor fum ton bu ko neexon tay ji la ko commencé ci ba fi kenn fi xaj waye fum ton ni limuy diglé mo digle yombul serigne bi lay jaamuloo yalla di la lo say wayjur di xamal sa dine di la jànge fum ton ni nan ngay tarbiyo sa borom kër di xamal nan nga wara mu nekké sa biir néeg see ba ëll nga am lu baax bobu serigne yombul bugu ko bugu ko salté bëggul ko xeeñ ku set wecc la bëgg te loolu nag moo yombatul si jamono ji fu mu toll nii ab sëriñ xam nga lu muy wut si taalibe nga dem liggéey rek indi ko addiye eh, moom xoolul noo mel si dara moom l'essentiel na addiye ji rek ñëw te ñi nga xamante ne ñoo chargé woon lu lépp lu doon lu aju ci wàllum collation ak muy seet yi ak li nga xamante ni mooy euh, aso muy téye yeeg chocolat chaud yeeg café yeeg yooyu ak fruits yeeg boisson yi waa Daara Mamoussa ñoo leen koy si gàmmu bi ñu njëkkee si table bi nga xamante ni moo def wàllu lépp luy tàmbali boo xamante ni pour déjeuner ceebu yeeg yooyu di di chocolat chaud thermos yi ñoo ci ak ndox bu tàng. pour defar tey am nañ façon tey yëpp lépp ñoom yëpp yoo xamante ni bu ñu xew lu bari moom la ñuy jël naan ko pour si lépp lu ngeen gis ci table bi rek échantillon yi rek moo nekk li ci nekk di ay tàngal ay jus façon am nañ fi jus bi ji ji bisaab bu ji citron ak bui, ak ndox li, ay euh, caakiri la am ci ay boisson façon bu nekk Sprite Coca Cola jus de fruit, ak yëpp table bi am ci ay dàq tandama, moom lañ def ci sachet bi ak ay tàngal màcc rech yeneen banque yeneen banque. bu dee dernière table bi ñoo ngi ci am fruits la ñu defar nii def ci suñu ay décoration def bi euh, plateau salade de fruits am xaar poire pomme euh, clémentine raisin ak orange ñu décorer ko suñu euh, màcc. table bii ñu def ko plateau xaal xaal bi baax na ci digestion bi tamit dañuy bëgg daal lépp loo xamante ni ñu koy jëfandikoo fii si gàmm bi di solal kenn ba duñu mën a tee ñu teewe guddi ci yonent bi mën a def salaat yi te déglu waxtaan si daal jàng yi xasida yi moo tax ñu présenté leen différents salades de fruits yi nga xamante ni fruits dina leen dimbali si xéwle yi plateau moo def jus bi jus yi am nañ jus bisaab am nañ jus d'orange jus menthe mojito la sprite ak citron am jus bisaab bu weex li nekk ci fontaine bi rek moom lañ def si bouteille ndaw yi pour service bi waaw noonu lañ ko décoré def suñu ay kaas ba mu ba mu gën a mérité rek loolu lañ leen doon présenté ci liggéey bi di santaat yàlla bu baax comme niñ ko waxee tey sant équipe bi ñu àndal waa daara yi maam Bousso ci taxawaay bi passif bi niñ ko defee woon ci màggal bi rek mu taxawee ko woon ci jàmm ñuy sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey ñaan si sëriñ bi mu yàgg jàpp ci lool te ànd ak ñëpp ci barkeeb Xaadimu Rasuul ci barkeeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbooloo yi maa ko ñaanal kan yàlla jaar loolu sih and booked to itu to para Interesting what I can just make there today. ah sëñ bi ñun deh, sant rek la ñuy def liggéey bi liggéeyu waa Daara Maam Bousso liggéey ak waa Rijal Sadako ñu jëf-jëf bu rëy ji ci bisu gàmmu bu tedd bi ñoo ko doon présenté Kër Ndiaye.

xolam sedd na ci lool ndax mënoon ngeen koo dajale ba noppi liggéey bi bañ a selle nii mu selle te ku yeewoo nasru baa nga bokk ci njabootuk sëriñ bi xam nga ni sëriñ bi moom daa bëgg lu sell lool kon daayira bi su amee pas-pasub dajale addiya ba noppi amaat pas-pas saytu ko ci subaak léegi ba nga xamante ni liggéey bi yegg na nii set na sell na kon ñom jeewrin yi nga xamanteni ni bi mo leen doxale seen digënté ak mboolem talibé yi ñu ngi sant mboolem talibé yi pas-pas bi reyna na lool ndax lii ku ko xor rek xamni ni jëfi yéene la waye serigne bi di sédel ni mbokki talibé yi leen fas ci seen xol ñom ëpp na ndax da am lo xamanteni ni nu genn ko rek ba nga tek ci ñaanal ci mbolom mi waye da am lo xamanteni kenn mëne su ko wax dañ koy rek lii nag mooy li ñuy wane rek muy exemple bi nga xamante ni dañoo bëgg nga teg ci sa bët rek ñaanal ci mbooloo mi ñu jublu ci liggéey bi looloo nag mboolem taalibe yi ñoo ko doon saytu seeni xol sedd na lool ñoom jëwriñ yi nga xamante ni ñoom nga tegoon ci kanam mbooloo mi di la daal sa mbooloo mii pas-pas bu dëgër la ñu amee ñu bëgg a defar lan ñu la bëgg a liggéeyal lan waaye loolu nag li laytaay mooy ñu la bëgg lan ñu la fonk lan ndax saa boo wootee liggéeyub sëriñ bi boo ci xesee tudd sëriñ bi rek kenn amatu ci sago dinañ def lu nu man ak lu nu mënut mbooleem taalibe fu ñu nekk Dakar fii ba bitim réew tàbbal nañ seen àddiyee ci liggéey bii liggéey bi nag noppi na yow lañ ko doon liggéeyal ci bëccëg ak léegi nag daa am kàddu goonuy wax te gëm nañu ko mooy yow da ngay pointé rek waaye Rasulullaay moo moom fay mooy fay waaye ñun suñu xel dal na ci ki ko teg ci loxo mu war koo jëbba Rasulullaay muy sa jëmm ji ndax xam na ni luñ mus a teg sa loxo fam wara dem te l'islam rek tax dana fa yegg kon jëwriñ ne ñu ngi sante bu baax serigne bi mbollem talibey waye ñu ngi lay cant cant go xamne amna fu mu tambale waye amul yam waay kaddu yoy mo doon kaddu Cheikh Matar Gueye alaykum wa rahmatullahi taala wa Assalamu alaykum wa rahmatullahi ma ngi len di nuyu yeen ñep serigne bi ne mbokki talibey mu ngi len di nuyu yeen ñep di len siaré ci goudi yonente bi alayhi salatu wasalaam mu màgg gi di leen siyaare ci goudi yonente bi alayhi salatu wasalaam mu màgg nga xamni sonu mën ta ñak ci jaam waye sonu ci goudi yonente bi rek moy gam jari nga xamni sonu mën ta ñak ci jaam waye sonu ci goudi yonente bi rek mo am jari ko sonal ku ne ko sonal ku ne te sonnoo ci goudi gi te sonnoo ci goudi gi sonnoo ci borom guddi gi. sonnoo it ci borom guddi gi. coono ba nga sonn. coono ba nga sonn. daanaka neen lay doon. daanaka neen rek lay doon. Serigne Touba day wax nii. Serigne Touba day wax nii. ayaa xaadimal muxtaar. ayaa xaadimal muxtaar. laa tansa. laa tansa. sahbahu. sahbahu. faman yansahum. faman yansahum. fal madhum. فالمته مت المخده مت مول مخدم مخدم دا واخني يومي بغا واخ دا واخني يومي بغا واخ تا سا واخ جيغا جوب جيغا جوبلي سي او تاغ تا سا واخ جيغا جوبلي سي او تاغ بودي يوننتي بي تخ صلاه والسلام بودي يوننتي بي تخ عليه الصلاه والسلام يالا دال لا كاي نانغول يالا داف لا كاي نانغول waye bo tagge yonent bi ba nopi waye bo tagge yonent bi ba nopi jambar yi mu andalon jambar yi mu andalon nga fatelen nga fatelen sa tag wi nga tag yonent bi. sa tag wi nga tag yonent bi. dañ koy taxagn sanni wat lako dañ koy taxagn sanni wat lako lutax lolu lutax lolu rasulullah alayhi salatu wasalam rasulullah alayhi salatu wasalam ak saxaabaam yi. ak saxaabaam yi. dafa melni pitch dafa melni pitch ak ay dunkam ak ay dunkam kenn munu ci dem bayim rom kenn munu ci dem bayim moromam. picc lu sori sori kaw picc lu mu sori sori kaw donc ya laaf ya mu àndal donc ya laaf ya mu àndal moo ko yóbbu fa mu ne moo ko yóbbu fa mu ne laaf yooyu nag laaf yooyu nag ñooy taalibe rasulilah alayhi salaatu wasalaam ñooy taalibe waaye donc waaye donc mënta naaw dem fenn mënta naaw dem fen bu ko picc yóbbuwut bu ko picc yóbbuwul picc moomu nag picc moomu mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy serigne Touba dina wax ni. serigne Touba dina wax ni. magal guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam magal guddi yonent bi alayhi salatu wasallam yan hatimu yan hatimu ala sawi taqadumi ala sawi taxadumi dafa war dafa war kep ko xamni kep ko xamni da nga jitu da nga jitu mbolo top la mbolo top la war nga wote war nga wote mbolo mi la top mbolo mi nga top nga wax leen nga wax leen ci tax ñu topp la ki tax ñu topp la kooku mooy kan kooku mooy kan te mooy yonente bi alayhi salaatu te mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom laa waxoon fii nii moom la waxoon fii nii waxuma sax yonente bi waxul sax yonente bi waxuma sëriñ bi waxul sax sëriñ bi waaye borom kër waaye borom kër ak këram rek ak këram rek su bisu yonente bi jotee su bésu yonente bi jotee père de famille bu ne père de famille bu ne war nga woote sa njaboot war nga woote sa njaboot ni la jikko bii nii la jikko bii mooy jikko yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy jikko yonente bi alayhi salaatu waxtu wo dajale mbolo nak waxtu wo dajale mbolo nak Wara waxtan ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wara waxtan ci yaronte bi alayhi salatu wassalam na nga def lu melni na nga def lu melni soko mané soko mané so manul li itam so manul li itam nga jëm ci nga jëm ci donte kaasu meew donte kaasu meew la ko berndeele ko ki nga wo ki nga wo ngir jëmmi rasulullah ngir jëmmi rasulullah ngeen di ko naan yeen ñaar ngeen di ko naan yeen ñaar di waxtaane yaronte bi di sallallahu alayhi wasallam. sallallahu alayhi wasallam moom la Sëriñ Tuubaa wax ni moom la Sëriñ Tuubaa wax ni fa man taxam man xayaha maanaam koo xam ne joxe nga benn dogu yàpp maanaam koo xam ne joxe nga benn dogu yàpp ci guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wala wala benn kaasu meew benn kaasu meew wala benn kaasu kafe wala benn kaasu café wala benn kaasu sii wala benn kaasu sii wala benn fur wi. wala benn fur wi. ngir jëmmi rasulilah. ngir jëmmi rasulilah. sopp ko. sopp ko nga def ko ci guddi gi. nga def ko ci guddi gi. xaadim nee na. xaadim nee na. yow mi def loolu. yow mi def loolu. bu ëllëgee. bu ëllëgee. bu ñuy fay waa Badar. bu ñuy fay waa Badar. ngir xeex bi ñu doon xeex la yonent bi. xeex bi ñu xeex la yonent bi. di fay waa Hunayni. di fay waa Hunayni. ngir xeex bi ñu xeex la yonent bi. ngir xeex gi ñu doon xeexal yonent bi. dañ lay fayaale yow. dañ lay fayaale yow. kon jar na ko. kon nag jar na ko. te koo xam ni. te koo xam ni. borom bee ko xool ba mu neex ko mu ni ko. borom bee ko xool ba mu neex ko mu ni ko. yow Seydina Mohamed. yow Seydina Mohamed. pour man nga. pour man nga. waaye leneen lu ma bind. waaye leneen lu ma pour yow la. ngir yow la. kon nag sunu sang boobu. kon nag sunu sang boobu. nga xam ni budul woon ak moom. nga xam ni bu dul woon ak moom. kenn du xew. kenn du xew. bay xewal dara. bay xewal dara. kon ku xew ku ne. kon ku xew ku ne. war ngaa woote. war ngaa woote. ci guddeem gii. ci guddeem gi loo mën nga def ko ci. loo mën nga def ko ci. ndokk bi ngeen ko xamee. ndokk bi nu ko xamee. ba weer wi teroog léegi. ba weer wi teroog léegi. ñu jóge Touba. ñu jóge Touba. suñu xalaat yëpp ñu soppi ko. suñu xalaat yëpp ñu soppi ko. jëmee ko ci. jëmee ko ci. màggal. màggal feetu. feetu dikk yonente bi alayhi salaatu wasalaam. dikkuk yonente bi alayhi salaatu wasalaam. ci jamono. ci jamono nga xam ne moo tax jamono naat. nga xam ne moo tax jamono naat. jëm jo xamni jëm jo xamni sun borom ji. asamaani sun borom ji. ak suufi yalla ji. ak suufi sun borom ji. ñom ñaar am nañu. ñom ñaar am nañu. problème problème. ba ciowo ba ciowo ku ne ni ku ne ni morom ma la gën. ku ne ni morom ma maa la gën. asamaan wax na suuf sa morom. asamaan wax na ni ko duma sa morom. suuf ni ko lu tax doo sama morom. suuf ni ko lu tax doo sama morom. parce que mun ko parce que toujours ci sa kaw laay nekk. mu ni parce que toujours ci sa kaw nekk. te kii féete kaw moo gën kii féete suuf. kaw moo gën kii féete suuf. day nuru lu neex a dégg. day nuru nag lu neex a dégg. teg ca. teg ca. man maa gàddu jant bi. man maa gàddu jant bi. mu tiim la di la wowalal. mu tiim la di la wowalal. maa yore weer wi maa yore weer wi mu tiim la di la leeralal mu tiim la di la reeralal maa yore biddiw yi maa yore biddiw ngeen di ci tegtaloo ngeen di ci tegtaloo taw bi sax taw bi sax ci kaw lay bàyyi ko ci kaw lay bàyyi ko suuf mel ni ko am kersa suuf daal di mel ni ko am kersa ñaan yàlla ñaan yàlla mu defal ko mu defal ko lu ko mën a tontoo lu mu ko mën a tontoo pourtant andi na argument pourtant nag asamaan andi na argument suuf suuf andi na argument nee na nee na lu fi nit jëfandikoo. lu fi nit jëfandikoo. mbaa bàyyi ma. baa bàyyi ma. ci sama kaw la sax. ci sama kaw rek la sax. budul woon ak man. budul woon ak man. ku juddu faatu. ku juddu faatu. te wax na dëgg. te wax na dëgg. waaye pour yàlla atte leen. waaye pour yàlla atte leen. mu sàkk. mu sàkk ku toll ni rasulillah. ku toll ni rasulillah. cëppeel ko ci suuf cëppeel ko ci kaw suuf. ca la asamaan noppee. ca la asamaan daal di noppee. waxatut waxatut. suuf di ko puukare woo. suuf nag di puukare woo loolu. 63 ans. 63 ans. asamaan ñaan yàlla. asamaan ñaan yàlla. niko lima don ma wax ak suuf te dominé ma. niko lima don ma wax ak suuf te dominé ma. ñaan na la nga may ma barkelo mohammed ñaan na la nga may ma barkelo mohammed motax yàlla yégué ko. motax yàlla yégué ko. subhana allazi asra. subhana allazi asra. bi abdihi. bi abdihi. layla layla. min masjidil haram. min masjidil haram. ilal. ilal masjidil aqsa. ilal masjidil aqsa. allazi. allazi. baarak naa. baarak naa. hawlahu. hawlahu. li nuriyahu. fi nuriyahu. min ayatina. min ayatina. yàlla yëkkati yonente bi yàlla yëkkati yonente bi mu riñaane fii ci suuf si mu riñaane fii ci suuf si dugg asamaani juróom-ñaar dugg asamaani juróom-ñaar ci lañ exekoo ñoom ñaar ci lañ daal di exekoo ñoom ñaar ndax bu kii bootee lam boot ndax bu kii bootee lam boot kii yor li mu yor kii yor li mu yor yonente bi sax fii yonente bi sax fii fanaani fee fanaani fee ñu tolloo ñoom ñëpp dara daal di tolloo ñoom ñëpp dara kon yonente bi kon yonente bi lu gën morom ma lu ne lu gën morom ma lu ne daa féeteeg moom daa féeteeg yonente bi moo tax ku la gën a sopp rasulaay rek moo la gën a moo la gën te sopp rasulaay te sopp rasulaay jëfe sunnaam da caa bokk jëfe sunnaam da caa bokk te jëfe sunnaam te jëfe sunnaam bernde bernde ak joxe ñam ak joxe ñam da caa bokk da caa bokk ak terle ak terle kon jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëf yàlla bëgg na ci li ngeen def yàlla bëgg na ci li ngeen def rasulaay bëgg na ci rasulaay bëgg na ci sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam xaadim rasul bëgg na ci xaadim rasul bëgg na ci ba bind ci ay xasida ba bind ci ay xasida waaye man mii di seen jëwrin waaye moom mii di sunu jëwrin bëgg naa lool bëgg na lool sëñ Mata sëriñ Matar yaag ñi ngeen ko séqal yaag ñi ngeen ko séqaloon soxna yu taaru yii soxna yu taaru yii mbokki taalibe yii mbokki taalibe yii bàyyi ko fu ne ci réew mi bàyyi ko fu ne ci réew mi ak bitim réew ak bitim réew ñëw ngir gàmmu seeg ñun ñëw ngir gàmmu seeg ñun amuñu seen fay amuñu seenuk fay waaye ñu tàllal suñu loxo rek xaadimu rasul waaye ñu tàllal suñu loxo rek xaadimu rasul bàyyi koog rasulilaay moom bàyyi koog rasulilaay moom mu bàyyi leen ak yàlla mu bàyyi leen ak yàlla seen aajo faju seen aajo faju adduna bi ne adduna bi ñu ne ak alaxira jën jëf jërë ngeen jëf lii taaru na lii taaru na yiw na yiw na te sell na te sell na te ku ne jëfe nga kàttan te ku ne jëfe nga kàttan maa ngi ñaan ci barke guddi gi mu ngi ñaan ci barke guddi gi ak barke borom guddi gi ak barke borom guddi gi yàlla nañu fekkee déwén noog yàlla nañu fekke déwén ñu la gi yéen waaye bala nu caa egg waaye bala nu caa egg ku ne ci yéen ku ne ci yéen mébétam mébétam ci wiw ciw wiiw yàlla na ko laq yàlla na ko laq la nga ragal nag la nga ragal nag na nga tàggoog moom tey na nga tàggoog moom tey mu mu wan la ginnaaw mu wan la ginnaaw ngeen nga wan ko ginnaaw nga wan ko ginnaaw ku nekk daw la nga man ku nekk daw la nga man ñaar ñu wanante ginnaaw nag ñaar ñu wanante ginnaaw ku nekk daw ku nekk daw lu nu gën a dox di gën di sore lu nu gën a dox rek di gën a sore am déet waaw dëgg la de waaw nit bu la wanee ginnaaw dem nga wan ko ginnaaw di daw nit bu la wanee ginnaaw di daw nga won ko ginnaaw di daw ku ne la la naqari ku ne la la naqari yàlla na nga ko gën a soree noonu yàlla na nga ko gën a soree noonu te li nga bëgg te li nga bëgg na mel ne ñaar ñu jàkkaarloo na mel ne ñaar ñu jàkkaarloo te seen dënn tafaloo te seen i dënn tafaloo lu ngeen gën di puusante rek lu ngeen gën di puusante rek di gën di jigéen ñi muy gën di jigéen ñi di hormati rasulullah di hormati ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf gan ñi bàyyiwunu kenn gan yi bàyyiwunu kenn sëñ xaadim mii xam nga ni sëriñ xaadim mii dafa volontaire rek dafa volontaire rek barki dembo boo rek lañ jàkkaarloo barki dembo boo rek la serigne bi ci Dakar gi ci dakaru gi mu ñaan mu ñaan lu mu wara sol ci guddigi nako defal lu mu wara sol ci guddigi rek mom nako defar mom defar ko andi ko barki dem defar ko andi ko barki dem fiñuy waxtane fiñuy waxtane mu musuma fee fi la ko fasiyene def mu musuma fi la fasiyene ngi tok ni mu ngi tok ni ak nun ñu ngi gërëm soxna sëriñ sëriñ Ahmad Kunta ñu ngi gërëm sëriñ Ahmed Kunta. Serigne Bikaay Kunta. Serigne Bekaay Kunta. ak suñu mbokki Ndiassane yëpp. ak suñu mbokki Ndiassane yëpp. li xew fii moo xew foofa. li xew fii rek moo xew Ndiassane. waaye mu bàyyi lépp ñëw. waaye mu bàyyi Ndiassane gépp daal di ñëw rek. ñi bàyyi koo dakaar ñi bàyyi ko Dakar. fu ne nit bàyyi ko na fa. na fa. ñu ngi toog ci jotaay bi nii. ñu ngi toog ci jotaay bi nii. ñu jóge Touba. ñi jóge Touba. fa laraay ba Téni. fala raay ba téene ku ne mënoon na faa gàmmu ku ne mënoon na faa gàmmu ñëpp ñëw nañu ñëpp ñëw nañu kokki kokki ñoom soxna nday jóob ñoom ñii ñoom soxna nday jóob ñoom ñii ak waa Louga ak waa luga ñëpp ñëw nañu ñëpp ñëw nañu Cees nag Cees nag ñi jige ñi jige ak ñu sori ak ñu sori tey wóllare kër gi tey wóllare kër gi ku ne gis naa ko tey ci salle bi ku ne gis na ko tey ci salle bi ak région beeg sous région bi yëpp ak beeg sous région bi yëpp bu dee ci xeetu addiya yi nag bu dee ci xeetu addiya yi na waa réew mi ak waa bitim réew ci waa réew mi ak waa bitim réew ñoo ci ñëpp a jàpp ci guddi yonent ñëpp a jàpp ci guddi yonent yàlla na yàlla faj aajo yi ñëpp na yàlla faj aajo yi ci barke rasul alayhi waa xidmatul xadim waa xidmatul xadim waa rijaalu sadaxo waa rijaalu sadaxo waa kër maam buso waa daayira kër maam Bousso ak ak ak mboolem dawaayir yi ak mboolem dawaayir yi rek sëriñ xaadim ñoom ñi boot ñëpp sëriñ xaadim ñi boot ñëpp rek kenn desul kenn desul jasakumullahu xayran jasakumullahu xayran wa kufitu mu sarra wa kufitu mu sarra bi jaahi rasul alayhi salatu bi jaahi rasulillahi alayhi salatu bëgg nañ ci ñëpp bëgg nañ ci ñëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bu ko defee itam bu ko defee tamit ñu daal ciy jublu ñu daal di ciy jublu léegi ndax war nañoo def sant gi ndax war nañoo def cant gi ci liggéey bi ci liggéey bii bu noppee dem ca tànt bi bu nekkee doo noppee doo ko dem ca tànt ba ñii yëkkati xasida yi ñii yëkkati xasida yi barkeelu ci barkeelu ci ñii waxtaane yonente bi ñii waxtaane yonente bi ci guddeem gi ci guddeem ay jikkoom ci ay jikkoom te benn boo ci jël te benn boo ci jël te pratiqué ko te pratiqué ko mu defar la sa adduna mu defaral la sa adduna defar la sa alaxira defaral la sa alaxira ñu war a jublu ci loolu ñu war a jublu ci loolu ba fajar ba fajar ñu ñu julli waxtu suñu borom bi ñu julli waxtu suñu borom ñaanal leen ñaanal leen ñaan yàlla ñu dajawaat fi ñaan yàlla ñu dajawaat sama xol sedd na guy. xolam sedd na guy. lépp luy tax ab taalibe jariñu daal. lépp luy tax ab taalibe mën a jariñu. yàlla nañu ko yàlla defal. yàlla nañu ko yàlla defal. lépp luy tax taalibe du jariñu. lépp luy tax ab taalibe du jariñu. yàlla nañu ci yàlla musal. yàlla nañu ci yàlla musal. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. kon mën ngeen cee jublu. kon mën ngeen cee jublu. bisimilah bisimilah.